di sunu borom bu baax ci lim nu ñëwaat at bi comme niñ ko yàgg defee ànd ak ay responsable yu ci coalition bi comme Malick Gueye ak ay responsable yu nekk ci parti bi ñëw pour célébrer bis bi nga xam képp kuy képp kuy bis la bis la bisu di ñaan ci li bés bi digal digle yàlla dolli jàmm ci réew mi léegi rek bi ma toogeek le xalif général des Mourides maa ngi koy fàttali daaw bi ñu fi ñëwee ci cadre Yewwi Askan Wi fekk jamono yooyu jamono yu tàng la politiquement parlant mu jël kàddu ñaanal Sénégal xamal ñu jàmm rek mooy am Sénégal te ñaan yooyu. ku gis dernièrement li xew ci Sénégal dans jamono bi nga xamni que bi doon doon inquiété wu ci li fi am ku gis donc ni mu ñaan borom kon encore une fois ñin fi fekk di encore une fois suñu responsable li nga mais di bi mu accueillir accueil exceptionnel et di ñaan ñu fekkee ko yeneen déwén yu bare